mbir mi ak chaîne bi ni mu demee dama tiitaat ci réew mi ndax xam naa ne l'injustice àgg na ci sommet te yàlla bëggul tooñ. keroog biñ ma jël see man xaw ma lu tax ñu jël ma. xamoo déedéet. sentiroo dara une euh, semaine ay fan avant. mukk amuñ problème. dugg nañ ci néeg bi nag wër lu nee lu nee lu ne fu ne jëlee lu fi daal benn pistolet boo xam ne dafa yàqu war naa ko ci projet bi ñu naan leen nañ génn avocat yi wax nañ leen génne leen pistolet bi pistolet bu yàqu boo xam ne xale yee ko doon fooy damay def man xale yi may yar ku ma ci gis mu yor loo xam ne luy xaw a niroog brutalité brutalité la hmm. ma jël sànni ci kees gi hmm. bant sax boo ko yoree dama naan jël leen bant bi bala moo gaañ xale yu Ndaw quartier bi mu nekk di fa dund yow xam nga ci dara dafa ma nekk waa quartier bi yépp am ak ñoom jàmm mais man ak xam gu ma xam euh, malheureusement le système occidental ak ni ñuy xeexee diina bett la ñëpp waaye man bettul ma mm-hmm. ndax ñelee nga ne leen daan leen wax ne gis ngeen jullit ñee ñuy tooñ ca réew yi penku ya di leen diaboliser na ngeen bàyyi xel ne tooñ ya fii la jëm si ndax même système bi la ma man li ma comprendre mooy lu tax lu tax ñu tànn la lu tax ñu tànn la ñëw sa kër heure boobu mm-hmm. ak brutalité bi nga xam ne Matar expliqué nga na ko plusieurs fois euh, alors que boo déparé Ndakaaru jëm kaw la quand même mm-hmm. romb ay jàkk ay daara ay kër ay imam ñu romb ñooñu ñëpp ñëw sa kër man loolu laa mënul comprendre am na am na sabab am na sëñ Maxtaar ak hmm. gis nga ane bobu dama woote eh, bind lettre gouverneur préfet maire autorité yi ñen ñu nek dañ leen a lettre invitation. Hmm. yóbbul leen plan de développement local bi ma lay wax plan de développement local bi gis nga buñ ko doxalon hmm. quelques années banque classique yëppay daan. waaw yëppay daan. kon da nga tegoon da nga tegoon système mbir mu waroon a daaneel banque yi. yëpp te itam nit dootul lebati xaalis ñu teg ca centime. Hmm. intérêt yi. intere yi ndax dafa am ci biir lu ñuy tuddee eh, finance populaire. Hmm. boo xam ne peuple bi ñoo koy créer delloowaat ko ci biir peuple bi loolu ñi nga xam ne dañ bëgg a dund ci suñu suñu deret hmm. bëgguñu ko dañ ko seetaan est-ce que boo jógee woon fii tey ndakaaru di dox ba Kaolack da nga fi gis imam boo xam ne mu ngi bind loo xam ne buñ ko doxaloon quelques années. Mhm. banques yi daanu. bariwul bëriwul bu amee bariwul mhm. kon lii sabab la ca. gis nga ngoon gi may jël si noonu. Mhm. maa ngi waroon def ak waa quartier bi jigéeni quartier bi benn rencontre kër Soxna Ami Diouf pour gaaral leen plan de développement local bi dañu commencé woon di structurer région bi di di sillonner région bi. structure région bi yëpp murit tijaan xaadir ibaadu ci biir structuration bi fu ñu fi dem dañ naan leen bu leen xàmmee jullit bi ak chrétien bi ci solidarité sociale da doon xaj moo tax bi ngoon googu bi ma demee kër Soxna Ami Diouf ma gis ne kenn ñëwut ma xam ne yaa quelque chose nga dem kenn ñëwut kenn ñëwut soxna yi kenn ñëwut. te ngoon googu mooy ci guddi gi la jël. ci guddi gi lañ ma jël si. nga dem ci ndaje mi ngay waroon a daje soxna yi. soxna yi kenn ñëwut mais imaam am Diouf ñëw ne ma daal xam naa soxna yi dañoo am ay problème mhm. moo tax ma yaakaar ne daal duñ mën a ñëw. mais am na ñu wax ne am na ñu doon dem ci yeneen i réew yu ci mel ni ay Nigéria di ko ah. fréquenté. mu ngoog doon ñëw ci sa daara ñëw ci sama daara. ndax loolu yëgoon nga ko wala xam nga leen wala am na. xale yaa ngoog sama sama daara nit mosut fa jógee dem Niger hmm. sama daara nit mosut fa jógee dem Nigéria hmm. maxtaar moomu nga xam ne mënu si te maxtaar joxaane ñu ne maa ko jàngal hmm. xale yàngu maxtaar jàngalu ma ko moo tax mbir yi ay mbir man gis nga keroog bi ñu toogee ci tribunal may déglu rapport bi ñu naan Aliou Ndaw dem na barab sàngam jiite na fa mm, réunion sàngam dama ne waa xanaa kon beneen Aliou Ndaw la waaw te loolu moo la dossier

takk der bi ñëw. Mhm. Euh, ki nga xam ne ñu ne dañuy dem Nigéria. Mhm. di ñëw di fréquenter sa daara. Mhm. président directeur général li ma toon daf ne ma. am na takk der boo ma ne. parce que wax njëkkoon naa ko ne ko am na takk der bu ko infiltré. nekk fa di jullee ak di photo ak moom. loolu yëg nañ ko ci suñuy source boobu Kousa kii wax nañ ko. mu ne ma jumaam jooju ak daaraam jooju. ni takk der bi ñëwee moom xamul fu mu jógee. voilà ñeneen ñi it mën nañ ñëw parce que daara yàlla rek a leen ñor te mu bañ a xam mm-hmm. fan la jógee loolu président ah. directeur général moom moo ma ko wax mm-hmm. tuumaal nañ la aussi ci prêche maanaam mm-hmm. ne li ngay wax dafa tàng maanaam da ngay wax nit ñi nañ xeex nañ def yi ainsi de suite bi ma ko laajee de ko loolu daal bokk na ci liñ koy discours mu ne ma nañ japp yalla moy terroriste parce que moom wax lolu ci bien mon président directeur général wax lolu yalla yalla yok yokk leeram te man euh. deglu na say presse mm-hmm. ci li nga ne fédérateur diiné mm-hmm. deglu na la nga def waxtanu am solo ni jigen wara mel ci soxna jaratu la ci magalu poroxaan très bien ils doon suivre religieusement donc kon li nga wax ne dafa am ay mbir yu beuy yo xam dañ ko lal ci mbir mi dafa melni lolu da koy firnde jërëjëf tey hmm. umpule woo ne même ñaari at yu mujj yooyu pencum sëñ Basiru Mbàkke mi ñu dendal ci fukki fan yu mujj ci weeru koor conférence yu mag yi ñu fay organiser toujours kenn lay doon ci conférencier yi ki nga xam nag dafa bëgg a teqale hmm. bëggul koo xam day ñëw di fédéré problème yëpp yi la di jërëm dafa am lu woon bëggoon laaj bi ñu la demee ne ca xeet ca Kaolack jëm ak yow Ndakaar. Mhm. laaj bi njëkk mooy eh, nga ne ci oto bi ànd ak ñoom. waaw di la indi. lu mhm. luñ la wax ak bi nga ñëwee jàkkaarloog procureur ensuite le juge d' instruction. Mhm. ñetti nit yooyu ñi nga àndal ci oto bi. le procureur le juge d' instruction lan lañ la wax ñoom euh, loo xam ne xëy na mën nga comprendre ne loolu moo tax mu jàpp la. Euh, ñi ma indi ñoom. waxuñ waxu ma ak ñoom. ŋaanguñu. déedéet Kaolack ba Ndakaaru. ba Ndakaaru ñoom ñu ngi wax seen wax. man maa ngi eh, nekk sama diggante ak sama borom mi itam. jéemuñ la toroxal ci oto bi. jéemuñ la brutalisé bi fajar jotee yi fekk ne man dama yëgaale ak njàpp. Mhm. ci biir oto bi xam naa ne fajar jot na. ci biir mhm. oto bi laa julli. nga julli ci oto bi waaw. mais bi nga génnee sa kër avant ngay dem tribunal am na beneen étape am na lu xew foofu ci diggante bi. avant may dem tribunal. waaw dañu ñëw jaar ak man directement gendarmerie. Mhm. gendarmerie la lañ wàccoon ci guddi googu. voilà ci guddi gi bi ñu jógee gendarmerie. foofa la yenn oto yi resté yenn yi ànd ak man ñu continuer si Dakar mm-hmm. bi ma ñëwee daal jël nañ benn néeg bu lëndëm boo xam ne fa lañ ma euh, denc man naa wax ne presque ñaata ñaata ñaata semaine ñaari semaine de. ci benn néeg bi ci benn néeg. néeg bu lëndëm maanaam amul lamp. am kooku bu fekkonte ne sama bët yi nekk na bët yu xaw a doy waar sax. dafa mm-hmm. fay jógee vision ma dootuma ko am. Hmm? néeg bi nii comme nii la mel am na benn benn tapis bu ndaw benn mat la mat la bi nii la mel exactement cuir hmm. la ci ngay tëdd de garde à de garde à vue ci lu loi bi wax ni ñaari fan la war a doon voilà deux semaines loola seetlu naa ne vraiment man ma fa jaar te itam néeg bi am na ay sol ay sonorisation yu yi fi def yoo xam ne day mel ni ay salive ah salir yoo xam ne dañ koy amplifier ba mel ni day ubbi sa bopp bi. pour nga bañ a nelaw waaw pour nga bañ a nelaw. pour nga bañ a nelaw. waaw ah, pour nga bañ a nelaw. sabu salir. après nga euh, teg ko doog a doog a gisee ak procureur. door a gisee ak procureur. mu wax lan. waaw bi ñu ma indee ci procureur li ma njëkk laaj mooy ndax xam nga lii ñu la fi indee ma ne ko déedéet. mu ne kon xamoo luñ la fi indi ma ne ko déedéet waaye daal leer na ma ne moom ci tooñaangee lañ ma fi indi ndax nit ki moo xam boppam lii bis ci camp pénal toog naa man juge d'instruction directeur bi nga xam ne moo sant Dia mu laaj ma ne loolu ndax amuloo dara looy looy looy looy tawat ma ne ko yàlla laa koy tawat jaaji waaye du yéen laa koy tawat mag doo ko jëlee këram andi ko toroxal ko jeng ko jeng, ay loxo jeng loxo yi ni lañ ko def melni ku japp ponkalum criminel takkaloon mënut hmm? hein dañ la takkaloon mënut nga andi ko nak diko laaj ne ko ndax amul lo may loy sakku ci man muna man ko kalkalat koy ko kenn la am ko may sàkku ci mom muy allah subhanahu wa taala directeur mu ngi may deg hmm. man mom juste d'instruction léegi nag bi ma laajee ne ma kon xamoon lu fi indi ma ne ko déedéet mu ne ma gendarme yi waxuñ la dara ma ne ko loolu ñu wax xaw ma ko ay problème mu terrorisme lañ may tudd ay problème mu euh, benn association de malfaiteurs lañ may tudd mu ne ma ne ko loolu ci yéen laa ko déggee moo tax xaw ma ko voilà enquête yi nii la demee ba mu ñu teel a ba ñetti at ñaari at ak juróom-ñetti weer. <laughs>

réew mi ak respect di droit humain amu fi ndax nit waroo koo dugal ci benn néegam moom dong man man sa man rek sama nekk ket gu bon laa doon noyyi vingt quatre heures sur vingt quatre Ablaye may ñëw laata ma koy wax it woo naa takk der yi ba ñëw may leen hmm. ñu ñëw taxaw ne leen leen dugg si leen ñu jege si leen ñu ne ñu ne non non ñun fii la ñu taxaw may leen kon yéen néeg bi sax nangu leen ko jege mais nag li may wax ak yéen mooy sunuy takk der ngeen respect laa am ci sama réew te am na ñaawteef yoo xam ne vraiment bëgguma ko génne àdduna di ko dégg ne lii mu ngi am Sénégal Abdoulaye Guèye mais dañ ko war a wax ma wax ko chef de cour ne ko nag bu dakkul sama visiteurs yi yi njëkk a ñëw dinaa leen wax ñu dem ci réseau sociaux yi vilipande ko mhm. mu ne ma non non léegi waaye ñun danañ ci danañ ci taxaw mais yooyu ñun bu fi amee jaaxal nañu xamuñ ko di ko completement keroog ba fa juge d'instruction ñëwee ak euh, benn substitut du procureur directeur camp taxaw ma wax ne lii mu ngi am ci biir kaso bi ñu yi damay leen noonu maa maa ngi jàpp nañ jublu penku léegi waat bu fekkente ne lii may wax hmm. amul xet gu bon gi

waaye ñun ci li ma doon wax léegi ci lislaam dañoo am référence muy rasulullahi sallallahu alayhi wa tooñ nañ ko e, dóor ko ci biir màkka ba dammu e, dégéjëm ci ci àllub Médine rey njabootam mais keroog bi mu demee ba ubbi màkka conquête de la Mecque jàkkaarloog ña ko doon def loolu yëpp ne tey nag lu ngeen foog ne moom lay def ñu ne ko mbaax rek mooy len bax rek lay def djegal na len topp ma keddal leen na loolu leçon la bo xamne ñun julli ñi ñoko mom motax avocat yi bi bëgge bëggee ci yoon damay len bu len leen ci dara dañ djegal len djegal len wa dañu wara dundalat sunnat rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallam comme li ko di pour l'acte de torture maanaam gannaaw ay tolof tolof ay euh, bànneexa si topp comme ni nga ko waxee noonu sànq mais tamit ñu gis euh, ci laata Pape Sané di ñëw euh, mm-hmm. ci ci sa nekkaayu foofu noonu ci kaso ba mm-hmm. am na it yeneen étape yu nit ñi fesalul mooy ne jot nga fa tawat ndax xawoon nga amoon na ay genre ay wëccu ay yu la fa daloon yu nit ñi bàyyiwul xel suñ borom nag def na ci kéemaan boo xam ne gis nga sama xale yaa ngi nii man at mu jot dama daan sibiru ñaari yoon moo tax xam naa ne bi ñu ma jàppee li seen xel njëkk a xalaat mooy. mu si bureau ci biir kaso bi. Mm-hmm. mais gis nga depuis ñu ma yóbbu camp pénal maanaam lañ ma téye laa gëj a xeet yu bon yi may noyyi chaleur bi may noonu loolu waxoon naa ko fii. Mm-hmm. jarul répété waat. Mm-hmm. maa ngi nelaw normal. di lekk normal mbirum suñ borom rek la. di jaamu yàlla normal. imam est ce que doon na am ay financement yu koy dimbale ci tabax juma wala tabax ay kër yooyu noonu ndax amoon ay financement yu jógee bitim réew eh, imam yàlla def na moom eh, ba mu jàngee ba ñibbisi dafa dafa toog rek dew bitim réew sàkku ci ay financement eh, aw ma benn bailleur boo xam ne mooy financé Aliou Ndaw am fi nag ay bonne volonté yoo xam ne rabbil alamin ñoom bàyyiwuñ daara ci hmm. ma tudd ci ku mel ni Ibrahima Niang tukkikat la ñom Aliou ñaan ñom ñoo ñëk ñëw ci daara ja tabaxal mu fa lu mat juroom benn classe tabaxal ma fa juma mais Aliou Ndaw moom mosta dem di laaj ndimbal ci naar yi mosulam dara mosul jëm bitim réew maa ci sama bay mu su topp sama jur señ daag mi ñëw na fa jaar na fa yagul dara mhm. ñun ñu ci àll bi di bay di sàmm di yar sax ganar ngir lan préserver suñu suñu pas-pas mhm. état jàppale wutu ci dara aussi yu fa am ay daara ak yooyu man amul yeen ay taalibe bitim réew fam ay daara ak yoy comme lii comme ñoo xamné ne nga leen jóge ci yow bari na ay daara bitim réew bari na bari na bari na mënuma leen a lim daara ji mag jama yor ne rek fam ne man man ta juroom benn daara lool nak bokku ta xalé yi nga xamné génné nañ ci daara ji dem samp sen daara dem bi sen daara ma la wax lu tollu bëri na trop mais mais man xam am lu mu ba ci biti loolu dafa am solo mais man lu mu junj ndànk ndànk mais man xadi waaw maam xadi vas y vas y Pape Ndiaye yow micro waaw Pape Ndiaye waaw dama ne maam xadi am lu mu junj léegi te dafa am solo maanaam waaw yow bañ la jàppee li tubaab bi wax trembale maanaam dañ la jële kaso bi yóbbu la fële yóbbu la fële ñi la mais avant dem ak am na prison jaar jaar nañ dar def presque mois ma ma defaat fa presque deux mois ñu jëlee waat ma rëbës yóbbu ma cap manuel def naa fa presque ñaata weer jege na jege na ay sept mois huit huit mois foofu laay door jóge yëpp ma euh, campionat xanaa mbisi visite yi da doon bëri mbooloo mi la fay fekk wala yooyu wala peut être dégg naa prison boo dem rek xale yi détenu ñëpp a ñëw ànd ak yow ne la yaay jiite kii waaw que loolu diiraan boobu lañ doon ragal loolu moom vraiment dama dama ci jaaraat parce que man dama bi may dégg prison dama doon jàpp ne ay nit ñu bay waar fa nekk ay nit ñoo xam ne ñu yàqu lañ mais yàlla xam na ne gis nga néeg bi ma njëkk a dem ci euh, rëbës chef de euh, euh, kii bi chambre bi maa ngi fàtte tur Diouf la sant ndeysaan yàgg na fa bi ma demee la ma gën a yéem ci ñoom mooy yërmande ju ñu am ci seen biir malgré condition yu difficile yërëmante ci seen biir solidarité bu doy waar ndax am na ci ñoo xam ne amul ku leen andi lekk mais bu lekk yi ñëwee dañuy boole lépp teg ñëpp tim lekk loolu la la la fekk ci prison bi fekk fa imam boo xam ne itam waxtu julli mu jot mu ci kanam yàlla def na nag bi ma bi ma foofu yàggu ma fa yaakaar naa ñam def ma sax lu semaine ñu yëpp ma ndar ndar bi bi ma demee néeg bi ma dugaat chambre 6 loolu même chose la fekkaat keroog tusbaar ji ma àggee dañ na ma ca kanam ma nekk di jiite commencé di leen jàngal ñoom ñëpp day sax ñu intéressé wu jënd ay ay kaye ma commencé di jàngale mais taxaw foo xam ne dañ ne maison d'arrêt et de correction nit ñëw di jàngal détenu yi ñu ne nañ ko séparé endoctrinement lañ doon ragal d'accord waaw euh, man foofu lañ ma commencé nag isolé di ma jox sama sama néegu bopp nak ñu né parce que waruma jonjoo ak euh, yenen detini ndax dañ leen di endoctriner <laughs> d'accord accord man imam man dafa am ben jangat bi nga xamné jangat bu particulier la ci dossier uh-huh. man amna naa chance uh-huh. lire procès verbal bi procès verbaux yi uh-huh. xam nga ñu bari nak li leen nax ci dossier imam ci presse bi ñi leen nax ci dossier imam moy c'est le rapport d'enquête enquête <laughs> rapport d'enquête bi nga xamné mom la gendarme yi def képp ku ko liir. Mhm. billahi buñ la tagalé imam ndaw mi yow sa bop da ngay jël paaka rendi ko. Ah. waaw ngay rapport d'enquête enquête. dëgg c'est un ramassis de mensonges des officiers de police judiciaire. moy mhm. manam ñom sen xalaat lu len neex. lañ ciy def ñom lañ ciy def cest le procès verbal mom moy refléter la ngay wax ak nit ki mu lay tontu. ok lolu moy na wax li ci PV. moom moy PV. ok mais le rapport. waxul ma wax ko c'est un plus du PV Moi, je nga officier de police judiciaire moi, moi toog. di xalaat su ko neexee nag sax ne ko fekk naa fa mitrailleuse moom bu ko neexee parce qu'on a dit dans la loi Sénégal l'OPJ doit prêter serment je suis son serment le lit. Moi, li suis wax dëgg la. donc loolu on a très vite. fait en sorte que alimenter une diabolisation ci ci mais vous lirez le procès verbal. Hmm. vide. vide vide vide. waaw exactement hein? Moi benn. li ma ci bëgg a wax moi xam Moi, mooy lan. Mhm. mooy sunuy il faut qu'il fasse très attention. Mhm.